et seen revue de presse. ñu ànd ci ak El Hadji Ahmed Aidara bismillah jàngoroy coronavirus gi day ah mi ngi commencé jaaxal sénégalais de tribune yéene kaay ne lu tolloo ñaar fukk ak juróom ci ay cas yoo xam ni kon daa positif de ca diwaanu Njàmbur laa ilaaha illallaah dama ne la ñaar fukk ñoo xam ni kon ca diwaanu Touba ga der nañ leen koo xam ne xamul fu mu ko dëggee ci Ndakaaru njaajal Jóob gi la Serigne Mountakha de ah daal di ne ne kon maanaam ay ñaan alhamdulilahi rabbil alamin président Macky Sall de ba nga woon Dakar de Louga day ak Touba Caaroy ngay toj waar di taali léegi si ko yéene kaay ne dëgg la Louga kay fi nekk nii moo jël lu toll ak ñaar juróom ñoo xam ni kon am nañu ko allahu akbar laa ilaha illallah moo taxit seenu maire di Moustapha Diop ministre waaw daal dina leen day ak lu toll juróom fukk ci tonu ceeb juróomi junni ci ay litre diw leen ak juróomi tonu suukar ak yeneen i bagage libération yéene kaay ne dama ne la kii nga xam ni kon fu mu ko dëggee xamu ko day xam ni kon gis nañ ko ci diwaanu ga altine démb ko wàllee lu tollo ñaar fukk xanaa xamoon ne am na ñoo xam ne xel daa ca ñoom ne dañoo am jàngoroy coronavirus joojee waaw génn nañ ca lagros ga ña ca mbedd may lambar lambari la ilaha illallah ah maa la ko mooy doomu Sénégal yi nga xam ak ñaar la ñu woon bañ ne cëpp dañ leen a defal des am ci juróom ñoo xam ni kon dañoo positif dañoo am jàngoro jooje ñu jël leen yóbbu leen dalal jàmm la ilaha illallah ña des ñu daal leen confinement daal di leen téye na kon ca la grosse ba seen wàllu ñu defaraat leen deuxième test waaw am ca ñeneen ñoo xam ni kon maanaam ñeent la ñu dañoo am kon jàngoro ji lee ñu dencati kon gaaya ngir contact la waaw waaye benn soxna soo xam ni daa am doole lool la lool kookee daal moo téléphoné kilifa yi ne leen damay ñibbi par force eh way samba waaw téléphone yi kon mel ni tul leen ma la la wax ku ne di woote ne ndaw soosee bàyyi leen ñooñee ñu ñibbi déedéet kay ah kay Pape Jogay Fay ne ginnaaw ñu daal di kon ñibbi eh way samba ilaha illallah àllarba ji ñu génn juróom-ñetti fan ci avril gi lañ leen bàyyi ñu ñibbi laa la wax Pape Diogaye Faye yamu ca ndaxte nee waaye ndax wàllu wér-gu-yaramuk askan wi lée ndax ëppul doole liberté ndaw soose looloo jara laaj en tout cas président Macky Sall ci termine yéene kaay de waaw nee na loi rek loi yoo xam ne kon ña ngi fay dajaloo waaw président Macky Sall bu continuer di dajaloo nii liñ doon bañ a def ko def maanaam nit ñi danañ leen fat seen biir kër ya confinement dakal opposition bi grand place de sénégalais yi ci boppam kon ñooy fooye seen bakkan xoolal ma benn gaal xam ni kon daa def ni ba fees moom la ñu wàccee kon ca KRPS wa ay dawal ko ci camion yoo xam ni kon ci état d'urgence bi la ñuy di ci yóbbu ay nit laa la wax doy waar réew mi quotidien ne li doy waar kay waaw mooy séddale dund gi lée werante ba tàmbali dama ne beetul kenn 24 heures yéene kaa lekk gi nga xam ni kon maanaam tëbate ma nga mel ni tulleeg maa leen nag laa la wax dëgg la Diop Sy ah nee na nit ñi nga xam ni kon ñoom lañ ca jël ca dispositif ba di leen jëfandikoo yëpp bu ñu boolee lañ leen jox yëpp deful benn milliard ak juróom-ñetti téeméeri million laa la wax ah Diop Sy ne maa ko wax grand place te yóbbu ceeb ya jooyee waaw ñu ne juróom benn milliard Mansour Faye te daal dina koy weddi ba nuppi xam le ne ne nguuru Sénégal kii essence daal la ñu jënd wàllum carburant fay la wax ah. ne enquête bi nga xam ne def nañ ko ca de ci transport ceeb bi lée waaw kilifa bu dee weeti juróom benn milliards yi tamit day waxuñu lu leer de waxuñu lu leer de vox populi ko ah kay Mansour Faye kay benn milliard ak genn wàlla la wax un milliard cinq cent transport wa tribune yéene kaa ne ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali dama bu dee ci Ndakaaru njaay joob gi lée mbir mi amul problème ndax armée banque bi waaw waaye diggante Dakar ak Bakel la muy saf muy liy jar juróom ñu la le témoin yéen a kaay ne bi nga xam ne daal am na ci milliards yi lée ci transportu lekk gi ci beeg yooyee waaw Mansour Faye coowal camion dabati na ko de ay benn waaw benn milliard la ñetti milliard la juróom benn milliard la ñaata la ca critique yéen a kaay ne Mansour daal la ñu jox ne ko doxalal habilitation la am moomi de ci ndimbal li ci lekk gi lée mbaadu kii wuutu kilifa gi lée moom la ñuy testé looloo jaralaaj l'observateur ne li jaralaaj kay Mansour Faye Diop si ak benn milliards yi nee na mandat wu député bu ñu fal mënta ànd ak chef d'entreprise de waaw les ko yéene kaay ne waa FMI de bu ñu niilalul bor bi tamit daal dugal nañu ñaari téeméer ak njiital jàngo bi ci àdduna bi de le pape François waaw daal dinay sàkku réew yi nga xam ne kon seen loxo dafa jot seen ginnaaw nañu niilal bor bi nga xam ne moom la réew yi ndool am alhamdulilahi rabbil alamin ndax nga wax ca le témoin yéene kaay ne nga xam ne ay handicapé lañ de waaw mer nañu de lool ndax liñ leen seppi nag ci wàllum séddaleem coow taxawal feebar bi la feebar bi dee source a nee na Sénégal daal fi mu nekk nii ñett la am dee lu mooy rek ay doomam yey dee ca bitim réew gële mar di Italie moo tax président Macky Sall ministre am Amadou Ba ñaar ñu lakk leen allahu akbar la ilaha illallah wala dajale leen suul leen la ilaha illallah boobay ñaar ñett te bu leen lakk day ca ab wu tàng jar température 800 degré Celsius te loolee nag la ci li fay Sénégal moom mu a xalaat moom la ñeen ñu doon xalaat dee am na Dieyna Baldé dee l'observateur nee na doom ja waaw Seydina Fall bu seli daal la ñu ko tuddee Diop Isega def lii waaw Seydina Diop bu ko seli la xale ba tudd <laughs> waaye waaye bee bébé nag ak luñ ko tuddee bugaa bugaa bugaa bugaa bugaa bugaa bugaa nañ jàpp ne pétrole bi moom kenn mënu koo fàtte parce que suul gaz su ko teree xëy waaye lu corona ji bëri coow coow coow coow coow coow coow nañ jàpp ne tam troisième mandat xëju fi de boo paree mën a tëjal jërë ngeen jëf jalti jalteeg ñol ñol ak coow lu rëy amagum na xaat ci dundgeetaa bi war a jàppalee lenn ci askan wi seen loxo jotul seen ginnaaw ci jamonoy coronavirus gi la Sénégal nañu keroog samedi ci ngoon ci teewaayu président de la république Macky Sall ci la ñu sarse ay camion ba ñu fees dell ak dund téeméeri junni tonnes yi ci ceeb fukki junni tonni suukar dëw di nag saabu war leen yóbbu ci juróomi téeméer ak juróom fukki commune yu nekk fii ci réew mi séddale ko lu mat benn million yu kër fa coow la nekk nag mooy ci marché bi jëm ci transporté dundu googe ndax laas nee nañu li ñu bari ci askan wi comprendre mooy lu tax ñu defub appel d'offre ba jël marché bi di ko joxe di ca fay xaalis bu dul jeex ci jamono jot ci collectif jëmbu transporteur routier yi ci réew mi neewoon nañu ku leen ko jox ñu yóbbu ko duñu ci laaj dërëm ministre Mansour Faye mi yore yëf yi ak l'homme des affaires bii di Demba Diop Diop si mi ñu ne moo gañe bi ñoom ñëpp ñi ngi xëy di weddeeka ci l'observateur juróom benn milliards yi ñu ne moom la ñu fay ci transport bi ubbil yéenekaay bi Mansour Faye nee na transport boobee ñuy wax xaajuta sax a yegg juróom benn milliard benn milliard ak genn wàll la ñuy fay ci transport bi Demba Diop di député Diop si mi ab entreprise am gagné marché bi di xamal waa l'observateur ne bu ñu doon calculer transport bi ñeenti téeméer di 2000 francs mooy pass bi ñuy yóbbulee famille bu nekk wàllam ci dund gi Mouhamadou assemblée nationale bu nuppi bëgg koo booleeg mbubbum chef d'entreprise ba naan mi ngi gagné marché yu ni mel loolee yoon nangu ko ñu nangoo ci journal Les ne bàyyi defal yàlla yi ci réew mi di bon wolante yi dugal nañu ci fonds force covid 19 bi ñaar fukki million yéenekaay bi nañu waaye ca joxe ba gis nañu ci ñu tabe gis ca ñu yéwén gis ca ñuy def ca yàlla tax gis ci ay lom des affaires yu boole nay ak ngot libération ne ko ngot ak nay moom feeña ci ndax Sococim Total Diagne ak Petersen joxe la daanu ci xeex bi ne ba yëf ya tàmbale ak na ci ñaari téeméeri million ak ñaar fukk ak bi ci mujj yéenekaay bi nañu mooy démb ñaari téeméeri million la jël jënd ci dund ngir séddale ko askanaw Touba ak li ko wër ànd ko nag ak maire bu Touba ñeenti téeméeri tonni ceeb ñeenti téeméeri tonni ceeb fukki junniy paquet yi suukar ñeenti junniy litre yi dëwlin ak yi muy ànd mu fekki fukki million yu mu génne woon ci poosu boppam joxe woon ko ci turu entreprise am di Touba matériaux Touba Louga ak caaroy l'observateur nee nañu ay gox la yooyu coronavirus ba ñoo nga fa ba léegi ci Louga nag fa la gën a tare ne ci diiru benn semaine cas corona yi jóge na ci ñaari cas dem ba ci ñaar fukki cas ak juróom libération nañu Ndakaaru it kenn demul mu des moom ay cas communautaire ñoo ko sonal ñoo ko togg fitna démb ci altine ji rek am na beneen cas bu feeñati ci Gueule Tapée La Tribune nañu ñaar fukki cas coronavirus ak juróom ñoo am ci Louga am na ñaar fukki doomi aadama yu ñu ber quarantaine leen ci Touba confinement total ci réew mi Sud Quotidien xamal ne nee na bu jàngoro ji delluwul gannaaw ca lañu jëm nee na it li fekk ñoo ngi dégg ay cas communautaire ci réew mi xeex bi du yomb suuf soit nañu maire bu Louga di Moustapha Diop moom ma ngay xeex bu baax a baax ak coronavirus bi les école ko boole ko ak di taxaw askanu Louga ci la am ca dëkk ba juróom fukki toni ceeb la wàccee ci Louga juróomi téeméeri litre yi dëwlin ak juróomi toni suukar te nee na du fa yam ndax moom Moustapha Diop mooy bàyyi fa lu Louga Louga loo kër mbargo Vox Populi mi ngi ñuy fàttali ci xëtam mu njëkk ne ñaar fukki cas coronavirus ak juróom am na ngi ñuy waxit ay cas communautaire ca Touba ak ca Guédiawaye LONASE di loterie nationale Sénégal Sénégal ndax dégg nañu li ñuy tere ci réew mi Vox Populi mel ne ko naan ni buñ ko déggee jëfewuñu ko ndax li ñuy tere ci réew mi mu di ay dajaloo di dogal bu jugee ci président de la république Macky Sall wàllonaas sàmmonte wuñu ak dogal bi ne ñoo ngi ubbi seen kees nit ña di fa dajaloo di carte muy jur ay rassemblement Vox Populi ñu firndeli moo di démb agence PLR yu Médina yu Sicap ak yu Plateau dañoo tijj. Ah, coowal camion yi ndeysaan ceeb bi mhm. ceeb bi. saako yi alaaji. Mhm. ilaha illallah. mais camion mbalit ak camion suuf ak camion bu baax laa wax dama ne. mais ça avant ñuy yegg ci ay affaireu camion suuf la ak mbalit nii presque fukki fan ak juróom laataa ceeb bii ñuy wax mbirum ceeb.